Mbacke laa tudd maa ngi sant yàlla di julli Seydina Muhammad di sant sama ñaari waajur di sant sëñ Maodo si mu sëñ Mbaye Sy di sama mag. lu waral ndaje tey. ndaje tey bi mooy ñu bëgg rekk coono bi ñu am ci Thiès dañoo am problème problème bi mooy lan ñun Thiès la ñu am Thiès benn amul benn isin amul benn liggéey marché la am. ñu nekk marché central di jaay bi ñuy jaay ñu nekk saam nekk fa di liggéey ñu ñëw toj marché saam génn nañu saam amuñu fu ñu nekk ñu toog di taxaw ci tali yi di jaay ñu di ñu dàq ñu di ñu dàq di ramas suñu yëf ñu dem ba ci biir marché ba ñu dugg fa toog installé wu di jaay léegi nag installé bi ñuy jaay dañuy fekk ci biir marché bi di ñu dàq di ramas suñuy bagage dem di ko yóbbu prison ba yii ñu di ko séddoo loolu yëpp am nañu lu ñu naqari di ko jooy ci presse yi di wax fu nekk ñoom ñu ñëw laaj ñu xaalis waa ñoo ñan la bi Lamine Diallo indi ma juróom benn téeméeri place ni ma da koy def ci kondir bi benn nit bu ne trois cent cinquante mille boole maag banque ma booleeg samay nit banque première bi mille deux dix mille la ñu laaj ak mille franc carte ñu joxe ku ne dix mille dix ñu jëf foto ñu doole ñoo banque ñu ubbi fa compte di fay weeru wu jot ñeenti junni di ko joxe ba ku ne sa trois cent cinquante mille jot gisuñu palaas gisuñu luñ ñu jox ñu boole ñoog di ñu dàq boole di ñu maas ay courant ak di jël suñu yëf di ñu bëmax ak mini bu ne ñu boole oto bi dañuy lay dàq nangu sa yëf nga wax ñu mbéj la boo waxee ñu boole la ak police dem jël la yóbbu la police crise boobu nag moo nekk Thiès Thiès nag amuñu jàmm boo ñu déggee naan Thiès Thiès waaye sa Idrissa Seck defaluñu fi lenn la mu ñu doon def nag ñun waa Thiès changé nañu ndax ñun dañoo bëggoon Idi def ko suñu xol. léegi nag ngeen fas yéene def. ñu fas yéene jël Macky Sall dugal ko suñu bopp te Macky Sall kenn lañ fi gis mu di ko liggéeyal di ko liggéeyal liggéey bu rafet muy Sira Dia liggéey bi rafet na. boole leen ak social man ma leen man leen rek laa bëgg muy ko dimbali nit ñi ndax man maa ngi jaamu yàlla ci nit ñi boole social dimbali nit ñi ak lu ma am bokk ak nit ñi kon ñi may dimbalee nit ñi képp ku ma ci fekk di ma ci dimbali ma téye la ñun Thiès nag ñun ñoo ko moom xam nañ secret yi ñuy voté di gagné xam nañ heure bañ koy voté xam nañ lañuy def lépp boo gis suñu loxo ñun Thiès ñun jeunes yi ñoo moom Thiès ñoo téye Thiès teg ko suñuy loxo kuñ ko joxul doo ko yoon ñoo ko joxoon idi yëkkatiwaat nañ ko tegaat ko bu ko tegaat ci kaw loxo Siré Dia mu tegaat ko ci loxo Macky Sall ci lim ñaata ngeen am ñun juróom benn téeméeri nit lañu ay jaaykat lañu boole koog nag dañuy dem géej ñu ñëwee amuñu oto boo xamante ne fa la ñuy dugal suñu jën yenn saa ñu jël ko def ko ci paan bu ñu xëyee fekk ñu sàcc ko wala bu ñu xëyee jën wooy yàq ñuy ñaan Sira Dia ñun xamal lu ñu bëgg ku ñu dimbali ñu liggéey ku ñu liggéey parce que ñun ñaanuñu kaay ñi ngi daan suñu doole bu ñu yegee fajar la ñuy jóg kaay nga jàppale ñu ci li ñuy liggéey ñu jàppale la liggéey Thiès parce que Thiès Idrissa yàqal nañu ko ci kaw lu mu ko yàqale kenn benn président bu ñëw wan ñu ginnaaw ndax Idi duggul ci lenn bu duggee day dugg ci ruqam mel ni taalibe ak sëriñam bu élection jotee mu jug caravane di jaay loolu jeex na fi ah, loolu jeex na Thiès ñun Thiès ñoo koy liggéey ñoo koy ñoo koy campagne ñoo koy jël teg ko ci loxo Sira Dia Sira Dia teg ko ci loxo Macky sàll loolu lañ bëgg ci Thiès ñun nag ñoo maa ngi lancé appel jeunes yi ñi ñi amoon kay kayit ak ñi amagul kayit nañ jug bindu ji dinaa ko dox dinaa lijjanti ku am ku amul lépp lu ci nekk dinaa ko dox dinaa ko lijjanti ñun carte la ñuy xeexee du waxu pëlët waxu euh, xumb rek mu dem déedéet suñu liggéey dëgg jour élection lay doon ndax lu ñu wax dinañ ko def bis bu ñu ñëwee euh, li ñu wax sa Seck dinañ ko def dinañ ko def xam nga doon nañ ko tuuti bu xaw a weng bii yoon dañ koy jaaxaanal bii yoon dañ koy jaaxaanal ndax Idi moomuñu Cees gi ñun ñoo ko moom ñun seen yi mag ñi fi nekkoon bu njëkk liggéeyuñu yeewul marché bi maa xoolal Cees ñi mu toll lu toll ni Cees deuxième capitale musul am marché poisson kuy politique nga dugg ci ruq dem ci bureau ñu neexal la def sa poste nga jug jox yaag say say say mbokk dugal nit ñi ci oto di leen jox ay 2000 ñu lay tàccu nga ñëw foog ne yaa ci nekk ba Thiès amul dara ñun soxlawuñu xaalis soxlawuñu li ñuy dugal suñu poste marché ak oto yu ñu liggéeyee loolu la ñu soxla te Thiès gi ñoo ko moom ku ñu neexul doo fi toog ñu liñ koy jëmmate rek mooy Siré Dia la ñu bëgg xëy na mi ngi def lu baax Thiès nag moo ko moomoon waaye daa amoon buntu yu des ndax ci campagne bi am na lu bari loo xamante ne xamu ko ndax nit day ñëw ni ko maa ami nit waaye ña ami nit waxuñu ko nit bala ngaa xam daa am nga dugub a ci moom ñun politique yu gu ne politique ñu politique yu weccet ay mag yi jëmm yor seeni kaat la ñu yor ñooy fal ñooy folli li ñu bëgg nag na ñëw dimbali leen ci social bi dimbali ci coono bi ñu nekk ñu leen di ramas di bali suñu xaas bi ñu lekk nag Macky Sall maa ngi koy lancé na ñëw dimbali ñu wutal ñu avocat suñu xaalis li ñu ji dafa bari waaw léegi loolu daal la ñuy lancé appel ñaan mu ñëw dimbali ñu dimbali ñu lu ñu liggéey wutal ñu marché marché poisson la ñu bëgg man Fat Samb laa tudd sama place nga ne waaw ci marché central xanaa lii ka mii nag la la ñu jàppale lii ka accident ja taxawal liika ka mii lii ka accident ja la jàppale ndax lii ka am na jom am na fulla am na fayda te ñun ñu ànd ak moom it ñàkkunu fulla te ku ñu jàppale nu dem ndax nag amatuñu dara li nu yoroon lépp dem na kii moo xare ba lii am lii ka mii xale bu am jom la gaynde la la mbër la jàmbaar la ku jàpp jàmbaar jàppal eh, jàppal liika ka am na jom am na fulla am na ngor nanu jàppale tubaar kàlla nu jàppaleen te ngeen defar sunu marché bii tubaar kàlla ay jaboot lanu sa sunu fenn amatunu mënatunu sunu doole jeex na nañ ñu jàppale dimbali nu te yàlla tax nañ ñu dimbali sonn nanu ku baax ñoo ngi lay nuyu man Ami Ñang laa tudd Ami Ñang laa tudd maa ngi leen di nuyu di leen gërëm li ñuy jooytu leen rek la ay jigéen lañ day daan suñu doole fii ci marché bi la ñu nekk di marché central di jaay jën ànd ak lii ko mii lii ko xamoon ñu ne nañ jàppale Sira Dia ndax Sira Dia rek a fi ne dañoo sonn ci ndax yi gara sonn nañ tàyyi ci ndax ku ci tegg natt deux cent mille trois cent mille dem jënde koo jën boo ko tegee ñu jël ko nga yor sa njaboot di daan sa doole si soo fenn lii ka ne kaay leen ñu wuy si ko bu ngeen benn ak man li lépp dina jeex ñu ne ko loo bëgg mu ne ànd ak ñu ànd leen ak man ñu ànd ak Siré Dia suñu ànd ak Siré Dia li ñuy jooy dina faju suñu ànd ak Siré Dia suñu naqar dina faju suñu ànd ak Siré Dia liñ bëgg dinañ ko am ñu ne ko ñu ñoo sa ginnaaw foo ne fa loo bëgg ña nga amuñu fenn yitte amuñu fenn soxla furu loo bëgg rek ñaka ca démb ñoo ngi moom ñoo ba timis tey jii dañoo nekk bëgg a nekk ak moom ba heure bu ñu yeewee ñibbi suñu kër ñun sonn nañ tàyyi nañu ko ra suñu paane jën di démb lañ nangu suñu jën yëpp yóbbu heure bi démb benn jën yoratuñu ko ñan ñoo ko nangu ñiy jàppee ci marché bi seen oto lañ yore di ko nangu ah waa mairie bi waa mairie bee waa mairie bee leen jabal waa mairie bee leen yebal waa mairie bi ñoo leen yebal pour ñëw fii ramasser jën yi ramasser lujum yi waa askan yi seen jaas yi seen paañ amatuñ leen luñ liggéeyee ñun de en tout cas grand sonn nañu si rajo nag bu jàppee ci lii dëggal ko fu laal ko ñoo moom suñuy carte te marché bi ñu jàppale lii que du ñu ñuy ndongu de ñi ci des yëpp dañoo dem géej jaaykati poisson yi xaaj bi dem nañu géej si rajo li muy campagne ak lii que su ko wóor na jëmmi seera faal dina xam ne lépp dëgg fii